bu doon dëmm ñu ne dafa jëfur ndax dafa dof ndax xale bu réew la daa foogoo ne day gagné ci xamul tus mënul dara à ci biir mbokkam yi ay mbokkam da jàppale nañ ko waaye moom kon mu dul yore réew mi mu dee yow fi ko dëkk rek nga mën a gagné mënoo feneen yow mënoo yore senegal fépp dañ la bàcc bàccal Dakar ju duma la Thiès ju duma la Sonko Kaolack ju duma Sédhiou ñu duma la Tamba noonu. waaw Kolda noonu. eh Kaolack noonu. Matam noonu. Podor noonu. Saint-Louis noonu. mais partout duma la. waaw léegi nag nga ne yow kenn duma wu la bu dul sa dëkk bi nga dëkk mënoo wax fenn foo gañe waaye ci ku mu yàpp Sonko kan la yàpp Sonko moo di ñu de yow doo dara.